aus billahi min seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ku julli guddeeg fukkeel ba ak juróom benn ñaari rakka rakka bu ne faatiha benn yoon isaa susulitil ardu silsalaha fukki yoon yàlla dana ko baal may ko musal ko ci balaa génne ñàkk ci këram dugal fu am koom wàcc fa yërmande mu dund dund ak àjjana ànd ak gaañu baax ña kon loolu mooy naafila gi ku naafila guddi fukkeel ba ak juróom-benn ñaari rakka lay doon rakka bu ne faatixa benn yoon isaa susuritul ardu fukki yoon yàlla may ko musal ko ci balaa génne ñàkk ci këram dugal fa am koom wàcc fa yërmande dana dund dund ak àjjana ànd ak gaañu baax ña wasalaamaaleykum